Maba Maba nam naa leen. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. xaaral ma jël sëy bi ñëw ñëw. waaw jëlal sëy bi. maa ngi ci jàmm rek. waaw maa ngi ci jàmm bu baax. fan yii moom gëj nañ toog waxtaan xam nga rek temps moom aw ma jot moom. dëgg la billaay mais situation kër gi gis nañu demee fan yii. tey moom seetlu naa ko trop. billaay sama papa moom xaw ma lan mooy problème am lan mooy problème am. mais xam nga paa bi moom yaa koy comprendre rek. dëgg la xam nga lu mu bon bon rek sa papa la tamit. yaa koy comprendre rek. dëgg la lu mu lu dëgg ngay wax ni kay mais sama papa man moo ma jaaxal quoi xuloo guddi xuloo bëccëg kenn mënu nekk si jàmm saa yu ma ñëwee xuloo laay fekk si. li xamatuma li lan la moo tax man chaque jour du ma ko may jàmm paa bi xam nga ma bu baax man du ma ko may dara naada laa ko dul may man ak paa bi fii Irak Irak rek la ñuy dund. loolu laay bañ a dégg. parce que xamu tax xamu tax loolu. Hmm. dafa mayul sama mère jàmm quoi chaque jour maa ngi toog di ci biir néeg bi di dégg lu muy wax. à chaque fois bul ko ci loolu yow. mais mais mais maman. papa ak mère wu ñu toogal fële. situation bi métti na trop. Babacar na ma instant yii amul lan laa bëgg man nga woor ma loolu daal moo ma gën a damaa woor. si li nga wax parce que daanaka sax man am naa sama benn caay bu nekk fii ak sama benn yére ne bu ma bëgg nga fóotal ma ko sax. yaa ko wax de su ma la ko fóotalee ce que di nga woor. non si dinaa woor. war moom dinaa ko def seeta ci ma reta nga woor dina woor waaw baax andi ko bokan de dina ko fot d'accord yow moom sama yow sama gaane ma yow man maa la sama bop deug la bugguma kenn di la hmm barki suri touba sama nit nga nak dinaa na andi tay nga fotal ma tam na ngay sama xarit mo ko defere jamam nek ci jam tek sama atay legi diko togu togg muy ñor man benn pergasu ben kenen bokku ku bëgg atay la ko togal sa bop man ataay ji dina ñor dina neex waaw. jukko jee jukko ji jukko jee. Eh, yow lii ngay way suba ba tey di dama ko ñëw lan moo tax nga koy way ak pour lan. xanaa di aw buur këram ne ci kër gi moom ko ak côté bu ne am samay wayu neex di way ba sama baat neex teg ci. yow wéro kon sañ ak ko wér baax na moo tax suba ba tey nga nekk ci kër gi di mel ni picc xam nga matadee tax nga fekk ñaari magum jëmm yu toog seen toogaay di sëy seen sëy mu neex loolu nga ñëw dugg seen diggante ndax yow ba nga dugg seen kër ba tey jàmm amul sa jëkkër lekkul naanul koor gi bu guddee doo ko toppatoo ndax rey koog wax ju dul jeex <laughs> taas bi yow la man moom dama du wax ak benn gone xamul problème yaay déglu yaay déglu dama ne la ne ma maay wax yow li nga nekk ci kër gi ba sama nijaay takk man xam naa ko yow fu mu nekk nii bam la takkee ba fii may waxee ak yow lépp lu ngeen mës a def loo ko a def wax na ma ko gis nga sa dara moo ma a foofu na nga war a xamee ne góor sasul fenn loolu mu la wax noonu ma nettali ci jógee ci yow ci mën a ëpp te wax ji sax daa du mën nag man xale duma fontoo doo ñëw sama biir kër bëgg da ngay toog normal rek la man ñaar rek kenn man sama bopp ma gis nga man fii jablaa sama taata ma téye dama ne waxaatal la nga waxoon laa wax nga xool ni ma lay def waxaatal ki rasulullah man xam naa ni may def da nga yaakaar da nekk ci kër gi nga naan benn ma naan ñaar may ma tuuti ma ñëw man ma mom kër gi ma ak ma géré maa aw buru kërëm du da ngay dañ la fal rek acca may na ca dal man ma ngi taxaw di len xaar daw ma dara ma nga jaar ni nii yoon bi xam nga foy jaar xam eh, eh, eh, ni nga jaar ni lu xew li kaw sama kër gi ni la la di la laay wax waaye yow loolu lépp yow war nga kaa wax yow aw yaa wax loolu yow mi nga xam ne yaay aw yaa war a uuf maa kenn laa uuful kii kenn mënu koo uuf ndax daa yor béjjënu digg ginnaaw kenn mënu koo uuf yow yow uuf da ngay uuf ku jar a uuf fa tanga ma yaa naa la yàgg fa ay bu ma taasal sama kër gi ma ne ma ne tax da ngaa ñàkk fayda matoo mankan kunkan amoo fulla amoo fayda yow waroo yor man maa ñàkk fayda yow man yow ma wax waxal ak eh, man yow kaay doo dem bu génnee am moo naan laggar abal ma sama kër gi jaara nii man mii fenn laa buuse la ko fii laay toog toog ci kër gi bu génn dem yéen ànd génn waaye man fii laay toog man sama doom fii la ñuy toog mag Babacar yéen ñoo ñooy génn dem ci bitti ngeen dem man maay aw bul kër lu ma laay def ma ni man faalewu ma la mënoo yor ñaari jabar da ngay jeng ni sa mbaxane mi wengee noonu la sa lépp wengee da nga doon sóoru fekk ñaari magum jëm yi bëggante ça fait longtemps nga ñëw dugg seen biir bëgg koo yàq man fenn laa demul yow maa la bokk nii ma ni maa la bokk nii ma ni maa la bokk nii yow ko bokk dara du la fi jëlee xanaa tama nga bokk xoolal foo dem da ngay ñëwaat ma ne fii laay toog fii la laay resté fii laay toog ma ne bougé wu ma meetar puusu ma paasu ma maaroo poolu mbalit. ndox ñoo ànd rek toog fii rek yow daal leen naqari moom du faju sa ñaareel boobu mënul toog boo ayee mu defal la kecca bu guddi jotee nga nga bu bu guddi jotee ñu lay wax ba ngay diyee fii da laay toog dangaa yaakaar da ngay indi ku baax waaye ki ngeen di baaxul man de fii laay toog xam ma ni ñàkk fay yaa tax ngay dàgg sante sa jabar bàyyi sa beneen jabar di ko taf tafal yow mënoo war nga ma da nga bëgg nekk fi amee ñun ñi man sama ñaari junni yi réer jarul nga koy wër dee na ñaari junni réerul jarul nga koy wër man mënoo maa teg xel ñaari junni ba nga duggee ci biir nga ko ko neexale te bu toogee dina jugaat ndax kii du saykat maa tey da du saykat man fii du ma fi bougé bu yeboo nga noppal sa yaram puusuma paasuma dama ne puusuma paasuma lay jeex nag kañ lay jeex ba kañ yow laa koy laaj ko jom